ci Dakar Buzz am nañu mbégte jàkkaarloo ak yéen tey jii fii ci jàmm gën ngir waajal le 6 lan moo xew Papa Sow Siteu ñan ñoo ko teg waa jàmbaar production tey Siteu def open press waaye li ñu fekk jàmm gën Seydou laa ci àndal ci cadre yi mën ta gaa technique Seydou Kaay Seydou Kaay yaa ngi noonu nga tagulu takk benn masque jëlama si biir tagulu la sol daal masque

said she yeah. Seydou Seydou Sita ngay def ay yëf gannaaw may ma ñëw. Seydou Seydou ngay def ay yëf. Sita ngay doon di box Sita ngay doon waaye li ma jaaxal kaguli la sol te kaguli du dugg ca làmb ja man nam da koy indi fii waaye xam naa ne góobu mu nam du làmb ñu ngi doon gàccoo seen séeréer ma seen kolifay deux taxaw ci wetam waaye Seydou li ma fi gis ci mbooloo te yéem na ma Sita def na lam daan def. saabu bu jógee mbooloo mu ñëw si tëli seeti li mënta ñàkk si taangi noonu si taangi noonu def ay gauche droite mel ni si fekkoon daa bëgg a xeex ci combat bi ngay def gauche droite ah jël gauche droite ah. ngay gauche droite da ngay gauche droite gàc ñu gis ko bu gàccoo xol gu weex bi gàccoo sëru sëru sëru sër bi nag tax waaye cey dimanche cey la le 6 cey dimanche le 6. cey dimanche le 6 cey dimanche le 6 gis nga noonu ña ngay organise waaye organiser ko mu jaar yoon dana jafe ngir mbooloo fi nekk ñoo bari. lépp jàmbaar la waa jàmbaar ci li sekk jëre moo ne ci cool mi noonu léegi tis tis. ngi noonu di def ay jeu de jambe ay gauche def ay gauche droite. c'est Siteu. maa ngi noonu gis caat. caat bi noonu taxaw. cey làmb seen ab maa ngi ne seen abu abu Ndiasse seen na abu Ndiasse ñu doon sol set bu xonq bi abu Ndiasse gi noonu am na mbër yoo xam ne seen open presse bu ñu am lu leen métti dañuy ñëw rek def ko ndax 30 personnes dafay nekk. dégg nga loolu yàlla la ñenn ñi nag ñu ngi sikki sàkk ji di koy tëgg lamb jàmm du tëgg waaye nee na ma maa koy tëggal nee naa ko ndax jàpp ngeen yàq tëgg na maa ngi tëgg sibtaa ngi noonu Seydou jëlama béjjën bi nu samp jën cey Seydou ak doy waar Seydou béjjën bi lu mu doon béjjënu lan la non béjjën bi ndax jon waar la jóge bi mu demee jon waar gisoon nga si béjjën bi cey Seydou Sey Siteu Seydou laa ci àndal la grand cadreur bisu magi Seydou ay génn mooy moom miin na bis. ndeysaan ndeysaan waaye naan Abu Ndiaye seegi noonu Abu Ndiaye seegi ma nga. Siteu ak Ngagne jël na béjjën ba jël na béjjën ba am na lu muy wax tuur na ko Saan moo tax. ndeysaan Seydou bu ma sukk nee ndeysaan Seydou dégg nga doon naa sukk leen gëm ñun sukk leen gëm Seydou borom café gi Seydou moo ndax sukk daa nar a naan café indi na café Touba Termes ak ay kaasam indi na café Touba na yéen a ko am ci Dakar News waaye li ma jaaxal borom café gi caa bokk ci tuus bi. Tidiane Faye ci tari de ci ma ngay fi ànd Tidiane Faye di fecc ma ngay fecc ndeysaan Jaan Fay ngi noonu may na borom kafe ji xaalis mbooloo maa ngay fàq ba ñëw sédd bi ndax dana yegg ndax dana yegg mbooloo maa ngay ñëw ndax li dana yegg sédd bi ndax dana yegg ndax Siteu dana mën a wax ak presse bi waaye daa xam ndax dana yegg ba tey Siteu feccagul daa commencé rek yëf yi ñun ñaa ngay màbb di ñëw. est-ce que mbooloo maa ngay jël di fàq di ñëw. caagay Bakul caagay Bakul si caagay Bakul caagay Bakul caagay Bakul Seydou. Siteu la ñu li ko waral mooy dañu jëm ci bés bu mag muy bésu le novembre ñu ànd ci ak waa Jàmbaar production digganteem ak Papa Sow tey maa ngi nii taxaw ak Lamine Lutte TV taxaw ak Fallou bu leeral TV ñu ak Fadal Ñang Dakar Buzz waaw ak presse bi yëpp ñu ngi leen di béggee bu baax a baax Lamine Fallou tey ñu ngi ñëw fekk fi sita Siteu tey gis nga ni jàmm gën mel gis nga say fan si tey ni nu def fii tey lii mësta am tey bi open press amee ba léegi nii tey bu bis bi melee nii tey kon lamb ja nan la war a mel ma bàyyi la nga nuyoo ak ñi lay seetaan. jël ko micro ba jox ko waaw asalaamaaleykum. di wax ne jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sant sama sëriñ sëriñ sëriñ Mbacke alxuraan Mbacke balaay sa maa ngi lay siyaar di lay bëggee di lay jox sa waajuwaay di lay wax ne ñun ñoo sa ginnaaw Mbacke Mbacke wax ñu ñu jëli ko rek ñu jëli ko yow rek la xaar ah. beneen bi may waxaat mooy damay nuyu sama mbokku séeréer di laaw foole séeréer nuwaanaa laaw séeréer misim nam gidmam hoyamno combat fanege ka hatuna a ñoojor jongwar fayago a munde jinda bo mi andonanga xane te ref fo mbin i mi xooya te ngara siktam no combat fanege yaam combat fanege combat sereer a ref i a jarana mo mi i kon nu ga kina wana rek fada fiim bege na len i bege tarkinay jama man fii mooy sama xol fii mooy sama xol. open presse bi xam naa ne mënul yegg xam naa ne mënul xaj fii mais man fii mooy sama baal fii mooy sama xol fii mooy sama jamaa parce que alxuraan fii jàmm gën ku leen bëgg rek ma bëgg la parce que muusu jàmm gën xaji jàmm sax ku bëgg ma fonk la parce que semaine du combat combat bi préparé nga ko presque huit mois à une semaine du si te instant bi lan lay yëg. waaw li may yëg lenn dong la taw fépp tëkkee am jaamu ju bari samay supporters di leen wax ne damay dalal seen xaalis di leen wax ne lamb ji dama koy jooy benn jooy. Ah. da ngay xool guddi gi kàlla wala boo na dégg dégg balaa ñu wax la mbooloo mi nekk si ginnaaw Siteu mbooloo mi xale yu ndaw yi bàyyi seen fukki dërëm seen i ñaar lépp di ko dajale ndax yow mbooloo mi nekk sa ginnaaw. mbooloo mi mooy tax may rey Samba Xal ñoom ñoo ma gën a Samba Xal ñoom tax ma dem États-Unis toog foofu dégg nga ñii ñii seen loxo jotul ñii ñoo nekk ndaw yi nga xamante ne ñoo ëpp ñii ñooy ndaw yi nga xamante ne ñoo takk jàng ñii ñooy ndaw yi xamante ne dañuy dem ñu liggéey ñu leen di fay mille francs ñu ngeen jëm si jàmm si jàmm ñibbi si jàmm mais a lañ ko si bërëk ñu ñoo ñu leen si jàmm xuloowuñu xeexuñu nañ dalal si jàmm ñu ñëw ñu daal si jàmm ñu ñibbi teg fair play rek buñ ko tegee rek fekk ko fi mais buñ luñ fi teg am na fi loolu laay wax. nan nga gisee làmb ak Zoros bi nga tey jii topp na ci ginnaaw Siteu. waaw sant yàlla lii yàgg na du tey xam nga ndaw la xam nga moom dégg ngeen dégg ngeen lim leen wax bu baax ñooñu moo tax muy sacrifice boppam kon loolu am na maanaam waxu ko lu maanaam lu nekk si xolam la wax lu mu gëm. ñu gis mu wax ba aalu sànni micro yi daw wàcc suuf lan la yëg. parce que dafa fonk combat bi te nit ñi xamuñu loolu. incha allah jërëjëf. naa la jërëjëf mbokk yi ba tey ni ma leen ko waxee rek. ñi ngi fii ci jàmm gan. ëppal presse bi nga xam ne moom la Siteu doon def ngir jàkkaarloog presse bi. mais tey sax sant yàlla bi ñu ko tàmbalee donte li ko bëggee amaguñu ko wonoon parce que mais am nañ tey as tuut parce que wax naag presse bi nit ñi dégg nañ ko donte li ñu an bariwul maa taxaw ak kenn koo xam ne kenn ku ne xam ne digganteem ak muy jiili mbapat ba léegi mook Siteu ñu ànd ju gis combat Siteu bi passé seytaane dugg ci ba am lu ci am ñu daal ñi naan aj nañ kook nu kook du bëre seeg du tëgg ak yooyu yëpp te jiili am ay fans ñu war koo xaar tey jiili lan ngay wax leeral ci loolu Farel damay sawar ko si li ma laaj noonu parce que mooy li ma la wax rek coow li bëri na trop eh, te man tuuti naa trop mais dama may mbokk sam papa barki maam Seera Fall tey dama open presse bi bokk na si open presse bi ma gën a sentir man sam du tëggkat sabar man sam papa du yor micro man sam papa du ancien gendarme la yaa ngi may dégg si beneen temps la ne mais tey dafa jóge ba Touba ñëw toog sama wet loolu dafa am lu muy joué mooy maanaam ñun nañ ñuy gis nii rek mais am nañ ay mbokk mais nañ xam ne am nañ mbokk bu ñu téye si télé yeeg yooyu du ñuy tongtongee Farel barki Seydouna Mohamed ñun làmb buñ ñu ko teree dañuy toog xamal tax ñuy toog ñun ñooy neexal làmb ñun bu ñu diggee kenn du ne stade bi yaraax na kenn du na tey neexul si te bisam yëpp dañ naan sax ambiance a koy yàq sànq damay gërëm samay tëkkat xamal tax gëj naa répété man Siteu ay Siteu Zarko laa gëj a répété man damay ñëw rek vocal booy démb si guddi lañ toog man ak Siteu januar ma ne ko feccal lii mu ma waa ma enregistré ko vocal yónnee ko booy ñëw ñu def ko nii muy demee. kon lii ngeen tëgg répété wala. billaahi wallaahi wal kitaabi ñii nii ñëpp ëpp na weer gisu januar laa jóge tey. mais bi saa boo génnee ñu ne jiir lam jiir lam defati. bi mooy moo secret bi moom laa doon wax noonu sànq moment boobu a wax mu xat mais dama obligé boobu ñëpp moo tax ma sant leen foofu mooy tuuti naa trop ñoo a dàq tëgg ñoo ma dàq lépp mais dañ ma bëgg doyloo ma bisu Siteu ñoom ñoo ma ko gën a bëgg ñoom ñoo may woo sax affaire yi affaire yi ban heure la affaire yi nii barki seexul xadim ay open open press open press a ngi nii heure bii laay ñëw januwaar laay jógee si jour bi ànd a gars yi ñëw mais ma dikkee ñoom dama leen fi fekk te dafa lu ma leen dara bu lamb bu paasee laa leen gëj a gisaat d' accord loolu la rek d' accord di gërëm ñooñu mais li nga xam ne mooy actualité jaaxal nit ñi te kenn ku ne xam ni Euh, jiili mu samp cóol mi Siteu war a bàkku amul kenn ku ne miin ku dul jiili lan nga mën a indi ci loo xam ne tey ñi ngi xaar jiili ba tax jiili dina ñëwam du ñëw may xaar ñëpp maa ngi leen wax nañu ñaanal yàlla wér ak wérle incha allah dinañ ñëw ba ñëwaatoo xam nga ñëw waxuma ñëw toog ci kaw tribune ba de wallaahi wàcc suuf xam nga keroog dama ne dinaa ñëw mais damay taxaw si ginnaaw sama rax yi tëgal Siteu may taxaw si kanam Papa Sow man lay bañ a gis dina jàkkaarloog man nii face à face may tëgg di xabtal Siteu bu ko Siteu jàppee du ma ko daan ko si kàttanu yàlla ñi naan CNG da la aj nag CNG loolu nañ dëkk micro benn membre CNG wala suñu père Bira Sène ñu laaj ko dañ ma aj wala boobu ba léegi rek nit ñay wax ñii dañu bëgg ñu aj ma parce que dama leen di déranger ñii nii dañ ma bëgg ku si mel ni suma père Bekaay kooku saa buy def émission yi boo xam ne day laaj ay sabar man lay njëkk woo su ma paree dafa may woo suruq na ma booy dégg naa la yamook nit ji li góorgóorlu yëkkati xaalis ne ma am paasal fii kooku sama père la pour moom dañ ma aj moo tax muy may gërëm si ba muy wax xamal tax déggoowut ak ñoom si kàddu man moom ñoo àndoon CNG combat ak moom Papa Sow bi mu avorté noonu ba si ginnaaw suba si sur lendemain bi dem nañ CNG toog Siteu dégg na liñ ma wax man dégg naa ko Siteu kon xam na ne ñu ma mais bu jékki-jékki rek dégg Papa Sow naan ay dañ ko aj dañ ma aj ba bis ba ba dimanche lamb ba mu sosoo ba léegi mbër mësul xuloog tëgg kat ak mbër a doon waxante man lu mu wax Siteu baal naa ko ko mais man waruma wax dara parce que man waxuma ko dara Siteu laay defal man li ma koy defal mu neex moom moog Siteu la na ma may jaamu quoi Papa Sow barki Serigne Touba yàlla la yàlla may wér may la talak fekke ba dimanche nga ñëw Siteu yàlla may ko wér may ko talak fekke ba dimanche bu ñëw fii laa la koy waxee barki Seydouna Mohamed Siteu bi gëj naa ñëw làmb Siteu bi musul ñëw làmb si wàllu physique entraînement ci wàllu lépp musul ñëw làmb loolu nag après moo tax su ma gisee commentaire yu bëri sax dina ma oy ree beneen bi mooy Siteu ak Papa Sow yàlla nañ jaxasoo bëre te yàlla tax ñeme nga loolu si kattanu yàlla dóor mu daanu sax day xaar Siteu ak Papa Sow yàlla nañ jaxasoo bëre moom yàlla na mën a tenir sax loolu moog Papa Sow naxante bi dafa doy ñun dañoo bokk si làmb ñun bu ñëwee day neex loolu waxuma ko sax loolu moom la mais dama ne la làmb bi ñu séq muy moom ak Siteu na fexe ñëw combat bi nag bëri na coow ay ñee ñoo ko tëgg ak jàmbaar ni ak jàmbaar ni Siteu mënul wax mais ñun ñooy Siteu mais daal kon daal li jaaxal xëy ñi daal seen xel da ci daal mooy yow yaay toog ci coon bi bàq. non maay loolu wax loolu ba ma koy bamtu sax dafa mel ni dafa nekk lu garaaw te garaawul loolu ji lay ñëw nit ñi danoo jaaxle parce que yow miin. nit ñi waruñu jaaxle xam tax waruñu jaaxle buñ gisoon ku mel ni waa CNG wax loolu sax bu boobaa ñu ñaanal ma war ñu jaaxle mais boobu ba léegi sama adversaire muy Papa Sow la ñuy gis muy taxaw jiili du ñëw jiili day xaar jiili nii xoolal keroog si jàkkaarloo bi nee na dafa baax naan non baal ko mu ñëw loolu eggul si xolam mais fat fat yàlla da ko weeraat Siteu dafa am nu mu waxee ak moom rek mu naan waaye kuy jiili kuy nii daf na fi combat moog ta mu xëy toog gàlleem lu ne mu wax ko si man man dama am ay mbokk Papa Sow billaahi ëpp ma ay mbokk beneen bi yooyu ñuy wax si télé yi naan ay nii ak nii combat Siteu Papa Sow ba si ginnaaw suba si man foofu laa ne man foofu nii nii mooy lan luy nii ak nii. nii ak nii comme ñii di wax si télé yeeg yooyu ay jiilit di tëkk ak non pas aj sax di tëkkoog yooyu nañ noo nañ ma may jàmm man jàmm gën laa dëkk barki maam Seera Fall te loolu baaxul imagine affaire lamb ma ñëw gaan bamba ma ñëw ma ñëw li may wax ni dafa am solo affaire lamb lamb la rek balaa ñoo xam ne li coow la rek la si si guddi ba si ta dëpp ko ba pare ba nit ñi jaar nii jëm jàmm gën moom moo ànd ak ñetti nitam jëm parcelle si lay xam ne lambu jarul sax coow lu bari. nee na bu ngeen yéexee ñëw du ngeen toog ndax keroog luy manifestation dañ ko arrêté dañ ko arrêté nag bis bi. combat bi dégg naa ko Papa Sow mille wax lay wax Papa Sow waxal benn wax tey damay damay wax ak yow parce que ndagam yow mi fayeeku say million doon leader yow yaa ma mënta yàbbi man saxantuma ak man yow man miy tëggkat gën la xam fu wax di tege junni yoon dama ne barki Serigne Saliou Mbacke wax sax jarul mu yam yàlla na yàlla daf jàmm ba le six Siteu dina ñëw ak anam boo xam ne dinañ ne non non lii lan la xam nga làmb jooy Siteu dafa ñëw indi poids bu bari muy ñëw di jooy. di dañ koo xaañ jooy di non avant ñu koo xaañ tuus beeg yëpp yow nit ñi di sañ-sañ ko tëggal lu neex moom muy jooy yooyu yëpp gis nañ ko bii nii yàlla baax na. làmb la bu kenn dañoo reew bu kenn nii làmb la làmb coow la baaxoo ñun ragaluñ coow la xam nga ñu bëri dañuy bañ coow ñun ay artistes lañ coow nañ coow ñun ragaluñ coow làmb la kenn du ma seetaan kenn di ma taxal di set non non Papa Sow yamal. barki Seydunaa Mohamed le six ma la fa fekkee ba xamtal bërre bi ba mu jàpp la ba bàyyi la si la nee na la ma la jàppee ba jàpp la daa bu bees ba mu jàpp la Papa Sow yàlla nañ ñi koy tëgal dañoo mën a tëgg kooku sañcatin mu ñoo koy tëgal ñoom baay Demba ñoo koy indi nañ ñëw farel aar ah, dama xool ba xool mais boo yaroo barki Ahmadou Bamba dañ lay suul te fii kuñ fi suul ñetti fan ñu fàtte la wallaahi la asi man dama yaru torop man maa créé li fi nekk lépp du ma ko wax man non bu ñëwee nga xam ne ñëw nañ du ma ko wax su ma waxee ne xamuñ dara mais gars yi dañuy mag fuuf war ñu teg loxo di ñu jébaane di ñu salteel dootu ñu ko nangu si dëkk bi lañ dëkk. lu bees la nga créé daal loo ko waxaatee. Siteu moo ngi ñëw Siteu mi ngi ñëw nag li ne si biir moo ngi moo bari. jooy rek nga ñëw mu jox ko benn jooy mu dem. yàlla baax na.